président de la république monsieur Macky Sall fi yebal daar daar gannaaw bi ñu nekkee ci ndaje bu jëwriñ yi bi mu yëgee xew-xew bi am fii ci Parcelles Assainies unité 15 ci la ma woo ne ma naa arrêté sama participation ci conseil des ministres te ma ñëw fii directement indi taxawu état bi indi jàppale état bi indi ko famille Camara ma leen di fàttali itam euh, nguur gi. liggéey na ba pare ci stratégie nationale de protection civile liggéey nañ ci ba pare dinañ ko présenter conseil interministériel ci lu gaaw ci diir bu gàtt. nañ ko présenter itam euh, conseil li na jàll aussi conseil des ministres ngir dogal yi ñu war a jël dogal yu mucc euh, euh, ayib yu am solo ngir mun a dàkkal lu mel nii. ma leen di fàttali itam lim nañ en tout cas bâtiment yi nga xam ne yëpp dañuy menacer ruine ci njiitu ci réew mi ba mu daj. liggéey bu am solo boobu ñu ngi ko def ak administration territoriale préfet yeeg gouverneur ci gox yi ñooñu ci jàppale ba tey jii may wax ak yéen xam nañ exactement ci réew bi ñaata bâtiment lañ fi war a daaneel loolu aussi am nañ ci liggéey bu am solo bu ñu def ba pare. leneen li mu woon wax mooy rafetlu teewaayu état fii ñu ñëw ngir jàppale famille Camara taxawaa Parcelles Assainies bi tax ma wax ko bi ñu ko yegee automatiquement la départ bi ma yegg see fekk naa fi préfet bu gox bi. mu ngi fi taxaw mu ngi nii sam wet fekk naa fi sous préfet gox bi itam fekk naa fi waa police ci lim gu mot sëkk fekk fi waa pompier fekk fi itam waa sami maire bi itam mi ngi fi taxawaayam rafet na ñu ngi koy rafet donc mun nañ ne ñëpp ñu ci waroon jàpp jàpp nañ ci ci daar daar euh, suivi bi nga xam ne aussi état war na ko indi incha allah bu soobee yàlla état dina ko andi ba mu moom sëkk dina ko andi famille Camara dina ko andi population Parcelles Assainies dina ko andi aussi ci réew mi gépp léegi rek maa ngi waxtaan ak préfet bi ma ne ko ah, conseil des ministres bari na li président di wax ci wàllu protection civile ci yaatal waaye ci tënk ci batiment yi nga xam ne war nañ xoolaat seen taxawaay te lu ci bari exemple yi muy gën di jël yi muy gën di faral di jël Parcelles Assainies bokk na ci fu mel ni Médina fu mel ni Gueule Tapée nga xam ay batiment yàgg la fii dafa tiim géej gi teg ci te fer bi ñu doon utiliser muy fer 6 bi ak fer 8 bi mun naa ne faire bu bu jamono weesu la. donc euh, soññ nañu en tout cas ci ñu baral liggéey bi moo tax ma ne leen léegi samay kàddu def nañu la stratégie nationale de protection civile du Sénégal ba mu pare loolu guleen la daanaka war nañ ko jëmal ci daje yooyu ma leen limal yëpp muy dajëb jëwriñ yi muy dajëb euh, conseil des ministres ba nga xam dogal yi ci am solo yëpp war nañ ko mun a jël donc président moom lu ko yitteel la. Euh, réew mi aussi euh, en tout cas état taxawaay bi mu war a def mu ngi koy def ñaari victime moo fi am loolu laa waxtaan ak préfet loolu laa waxtaan ak maire loolu laa waxtaan aussi ak euh, police ak pompier ak sami ñi ma fi fekk ñaari soxna la kenn ki am na ñeent fukki at ak ñeent keneen ki am na juróom-benn fukki at ak ñeent ak ñoom ñaar ñoo nekkoon ci biir décombre yi ah bi ñu amalee liggéey bu am solo bi ak pompier ak police ak ñi ma fi fekk ñëpp génnee nañ leen ci décombre yooyu ba dugal nañ leen ci ambulance bi jëmale leen fi leen war a jëmale donc lu ñuy méttit la lu ñuy ñaawlu la ñu ngi jaale famille Camara bu baax a baax di leen massawu di bokk ak ñoom tiis bi ak naqar bi di ñaan yàlla aussi ñu fi jóge ci anam yi yàlla xaar leen arjana ah yàlla aussi euh, aar en tout cas réew mi def fi jaamu def fi sutura def fi yokkute